waaw yooyu aussi nan ci nan ci bu état bi mënee gën a yaatal ñi nga xam ne amuñ doole tey def. Mm. Euh, mm. Euh, maanaam euh, élevage. Mm. campagne bi pour ko mënee yaatal. waaw vaccin yi war a egg nan fa war a egg. Ah. des fois du fa egg ba pare ama retard man naa lor ñi xaw a néew doole waaye quant ñi sama genre keeg ñeneen ñi def élevage moom lu nekk maanaam li ñuy toppatoo jur gi sax soo seetlu duñ ko toppatoo doo doo duñ ko topp. dëgg la dëgg la. Mm-hmm. te nit ñi xoolaat aussi ci fas mbaam yow docteur yi nii yor di ko jëfandikoo. Mhm. munoo yor fas wala mbaam di ko liggéeyaloo ba jant bi soo doo ko toppatoo. di mhm. dóor mhm. di def lu nekk li lay indil nga lekk sa kër kay wax dëgg yàlla. waaw war nga ko mën a toppatoo wax dëgg yàlla. yor sa xëy dóor ci waa yàlla yi. Ah. dóor fii jërëjëf yëpp di loolu nañ ci bàyyi xel. doo bokk ci di lor doomu aadama. jërëjëf docteur. jërëjëf fooy wootee sëriñ bi fooy wootee man la Boy Diaw Dakar lay ah d' accord Boy uh-huh. Diaw d' accord. jërëjëf. Euh, jërëjëf euh, ñu jël kenn xam naa Assane daal di taxaw ñu ci des mayaat ñu docteur euh, daal di tontu. Mm-hmm. balaa ñuy ubbiwaat antenne bi ñu ngi ak docteur Isma Ndiaye mu di vétérinaire consultant te ñu ngi ci li ñuy tuddee ay zoonoses. muy mm-hmm. groupe bu feebar yoo xamante ne ay maladies infectieuses lañ leen di woowee mu jóge ci mala yi di dem ci nit waaye aussi di jóge ci nit. Mm-hmm. Eh, di ñëwaat ci mala yi. ñu xool ki si topp kan asalaamaaleykum. <laughs> merci beaucoup ah, waaleykum salaam euh, maa ngi leen di nuyu di nuyu madame euh, la présentatrice. ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay. Euh, di nuyu aussi l'invité et di ñaanal di ko wax yàlla na yàlla def da mu am que qu'elle soit décorée de la médaille. amiin amiin doon la remercier pour service. éminent rendu a la santé au Sénégal. amiin amiin amiin on sait jamais. tout à fait yàlla baax na yàlla baax na ñaan rek. man tamit si Diallo waaw maa ngi leen di woo depuis Kounoune. si Diallo Kounoune. voilà man euh, dafa benn question ou ñaari question. bu mhm. bëggoon poser la première. Mhm. c'est concernant bon autrefois j'avais remarqué que ni dañoo am le cheptel canin. mais errant. Mmh. des chiens errants. waaw. Mhm. bon ça fait longtemps là j'ai pas vu ces genres d'opération. qui hmm. étaient décidées pour participer. Hmm. non seulement à la sécurité mais aussi à la santé de la population. Hmm. à travers souvent ils sont atteints de rage. Mhm. bon justement ko ma doon laaj lu tax loolu daal. ce n'est plus fréquent compte de la surpopulation maintenant. Mhm. kooku mooy la première question. Mm-hmm. bon la seconde mooy bon au docteur. waaw. il y a une législation au Sénégal. Mmh. parce que à ce que je chercherai. dañ ne tout animal griffeur. Mm-hmm. mordeur. oui mordeur pour un chien. Mm-hmm. doit être détenteur d'un carnet de santé. pour suivi et sa mise à jour. ma doon laaj ndax loolu législation boobu au Sénégal. am na fi. Mhm. yooyu. Mhm. Mhm. parce que souvent il des contrôles inopinés. qui sont effectués vis-à-vis des propriétaires de chiens. quand je dis chiens je allusion aux chiens de race. qui doivent détenir des carnets de vaccination qui sont mis à jour. voilà ma deuxième et dernière question. je vous remercie et vous encourage. merci Diallo merci mm. beaucoup monsieur Diallo Kounou Assane xam naa kon dañuy taxaw su fekkee amul ko rëcc déjà euh, daal di dugg si. ñu daal di mm. mën a tontu docteur wala am na ku ñëw ay ca mm. ñi nga ànd ak Val d'Afrique di leen may seen émission wala docteur Pikine na la ñuy njëkkewaat euh, ne na. Euh, dafa dégg docteur ñu ne su fekkente ne lii moom wax dëgg yàlla maa ngi koy doog a dégg. tey bu fekkee da am AVC. mën nga ko fajee kañ waaw. ah waaye tey xel yi doy na waar lool maa ngi Uh-huh. waaw euh, gis naa nag euh, ay chinois yu ñu wane ci réseaux sociaux yi whatsapp yi. Uh-huh. ñuy jël kañu guy dund guy dund di ko di ko di ko màtt te bopp ba la commencé. Uh-huh. bopp ba daal koy dagg tapit kay. guy dund guy dund. waaw noonu la ko saxee. waaw xam nag ndax moom day faj AVC wala déet waaye daal ndax dina faj AVC wala déet. loolu dama koy bàyyi ak sama mbokk médecin yi waaye xam naa ne bu fi toogoon it. danañ ko ne daal. ah euh, gënuñu ne bul laal bul jéggi waaw waaye nag comme bi tey naraanaaw si te tudd nañ ci ab kaña. kaña dama ciy def benn prox ndolo rek. xam loo ko ne. Euh, kaña euh, bëri feebar yoo xam ne mën na jóge ci moom dem ci doomu aadama. comme yan. feebar bi ñuy wax leptospirose bu jàppee doomu aadama bi day mel ni dafa dafa dafa ànd ak sibiru. Mhm. ànd ak sibiru yaramam day tàng di metti bopp bi di metti ak yooyu comme sibiru nu ñuy rek waaw. mën nañ fa nekk di faj si buru fekk fekk du loolu mm-hmm. ñaare moo tax sax muy kaña muy jëndax yëpp mën nañ koo mën nañ koo def ñaare moo tax sax ñu naan su euh, yi partage yenn saa naan kanet yi nga xam ne dañ koy teg Euh, mhm. fekk euh, janax jaar la ci kawam par exemple saw ci boo dul jël matuwaay rek di ko raxas balaa nga ko def ci frigo bi ak boo génnee lenkaliwaat ko mhm. boo deful nànk mën nga euh, war na musiba waaw ndax xam kaw kanet kanet bi da ngay ubbi rek daal di waaw waaw mu ngi noonu mhm. bu fekk am na on si yoo xamante ne maanaam ay doomu jàngoro mën na wàll doomu aadama te bu ñu fàttali ko peste bu mosoon am ci doomu aadama Euh, dans les années disons trente quarante. Mhm. Euh, peste humaine amoon na fi di faagagal doomu aadama yi. waaw euh, dafa jóge woon ci ay kaña ak janax. Mhm. ci ay kaña la jóge woon ba tax na kon feebar bi sax amatu fi macha allah yàlla na law. waaye nag bu fekkee dañuy dellu ci loo xamante ne am na ku ko wax ci intervenant yi. waaw di jëfandikoo loo xamante ne ay rabu àll la. te nature bi dafa am fu ñu war a yem ak moom. Mhm. waaw yàlla dafa leen lii ngeen war a jëfandikoo. la mu ne nañ ko bàyyi am na lu waaw dañ ko fa baax. bu fekkee nag ah dañuy romb yooyu barrière yooyu bay dugg ci yoo xam naka su dul noonu waxatuma sax nga euh, lekk ko togg ko ba mu ñor nga lekk ko waaye yaa ngi koy lekk ba muy dund. Mhm. waaye yaa ngi koy lekk ba nga xam ne maanaam ma ngay dafa dee mais kenn kenn togg ko. loolu suba boobaa risque yi day gën a. day euh, gën a yokk parce que jaarul ci lu tàng. jaarul jaarul ci lu tàng waaw loolu yëpp daal. Euh, kaña daal euh, ko daal mën laa ci gën a gën a digle waaw euh, Kër Massar nee na nag boo xamante ne dafa am tuberculose docteur mm-hmm. ndax wàllante bi ci yàpp bi lay doon wala ci meew mi waaw ban type la mm-hmm. tuberculose pulmonaire wala extra pulmonaire mm-hmm. yàpp su fekkente ne jënd nga ko ci marché ba ndax boo koy jënd da nga war a fekk ñu def ko ci glace soo ko fa jëndee ba ba nga yegg sa kër ndax da nga ko war a def ci glace waaw c' est sûr que it xam naan soo yeggee sa kër. da nga mm. war a defaat chaîne de froid bi. waaw waaw dagg euh, mm. 24 heures. Mm-hmm. soo rayee mala ba pare da ngay xaar bis balaa nga koy lekk. ndax loolu lu wér la lan nga ci xalaat. Euh, xar moo xamante ni itam. Euh, dafa mm-hmm. faatu. ndax mën nga koo jëfandikoo wala déet. Mm-hmm. yàpp bu ñorul moo gën yàpp bu ñor. yooyu yëpp loo ci xalaat. waaw tuberculose bi ci gën a fës si doomu aadama mooy nga xam ne doomu jàngoro bi dañ koy wax mycobacterium pseudotuberculosis. mais bu ñu demee ci mala yi ku ci nekk am nga aussi sa mycobacterium bu dee nag bi mën nañ fa fekk mycobacterium bovis euh, mycobacterium bovis boobu nag euh, euh, bu demee ci doomu aadama bépp mycobacterium rek buy joxe tuberculose bu demee ci doomu aadama mën na nekk pulmonaire comme mën na nekk extra pulmonaire ça dépend rek yenn saa yi doomu jàngoro xëtër gi la taamu waaw xëtër gi la taamu waaye yenn saa yi bu fekkee dafa rëcc jàdd yoon mm-hmm. mën na dem am feneen fu mu placé wu mm-hmm. donc loolu Euh, xeetu microbe waaw mooy extrapulmonaire yi euh, mais mu euh, muy wàllante ndax ndawal bi la walla soow mi la mën na nekk ndawal mën na nekk soow mm-hmm. bi ci gën a bari nag mooy soow mi ndax bu dee ndawal la bu fekkee fii Sénégal xam nga ndawal bu ci tuberculose nekkee day fekk gis mu def ay lu mel ni ay taat voilà lu mel ni ay taat mm-hmm. donc ko ci gis donc loolu mën na alerter borom bu dee ndawal gi la mm-hmm. mais bi ci bi nga xam ne nag mënoo koo seetlu mooy bi nga xam ne ci soow mi la. ndax nag bi su amee tuberculose li ci gën a bari du ko manifester comme doomu aadama doomu aadama dafay sëqat di xaxtandiku ak yooyu. mais bu dee nag bi dañu gis muy gis di yooy. di maigrir borom naan faj naa ba sonn waaye mënut am yaram. Mm-hmm. ainsi de suite voilà. Mm-hmm. fekk nag mën na nekk tuberculose la te li ci gën a bari sax dañ naan lu ci gën a bari day nekk découverte d'abattoir ko. ba ubbi xëtër yi ci lañuy waaw ci lañ gis ne ah kon ndeke kii lii ko téye woon uh-huh. kon moo tax nag fàggandiku daal di baax uh, ñi nga xam ne ñuy ratt soow noonu rek ci tàng-tàng bi rek daal koy jël jolo ko noonu loolu aussi la uh-huh. uh, ci maanaam xeetu tuberculose waaw donc war nañ jël matuwaay uh, bu ñu rattee tàngal ko ba mu tàng tuuti li ñu naan pasteurisation. dafa war a bax saxul muy bax bu baxee rek dafay yàq lu bari ci maanaam élément nutritif yi. Uh-huh. Ah, mais bu tàngee ba kaw gi saxaar rek. waaw waaw diggante ay. balaa dig balaa muy bax daal. waaw balaa muy bax waaw voilà nga teggi ah. loolu mais lu jiitu fekk nga seggoon ko benn morceau bu woyof boo xam ne seggoon nga ko pour yenn impureté yi yooyu salté yu grossier yi moo mm. loolu digle ko ci ki nga xam ne day ratt ko di ko ko naan. mais bu dee dañ ko a bari dina am yenn microbe yoo xam ne danañu dee. parce que xam nga bu ñu ko wayalee day nekk euh, maanaam un milieu acide day xaw waaw forox am lu muy voilà day waaw mën na am rey yenn yenn xeetu microbe. Mm. waaw mais daal ñu xam ne bi nga xam ne day jaar ci meew mi daal mooy ëpp bu fekkante ne ci ci nag la jógee. Mm-hmm. Euh, waaw léegi euh, bi nga xamante ne nag ndax. Euh, waaw li nga jënd ci marché bi ndax. ko ci waaw. da ndax da ko war a fekk ñu def ko ci. glace ci glace waaw boo koy yóbbu tam ndax ci yoon wi da nga ko wax a def ci glace. voilà xam nga ndawal li mm-hmm. bu xasee ba jógee ci abattoir ba. bi jóge abattoir moo tax may wax parce que tam li nga xam ne da ñëw fekk ci gannaaw taabal bi. ñu mm-hmm. ñu daal ko fay reyee rek daal di koy lonk. waaw loolu beneen affaire la kooku abattage clandestin la. wóorul mm-hmm. mais ba jógee ci abattoir ba. Euh, euh, am na ku ko fi wax léegi je crois monsieur Diallo la. Mm-hmm. Euh, dinañ def li ñuy wax maanaam contrôler contrôle ante mortem balaa ñu koy rey. Mm-hmm. xool ndax kaw yaramam amul wenn mandarga feebar. bu fekkee nag am na mandarga feebar dañ koy bloqué. bu amul mandarga feebar ci kaw yaramam nag ñu daal koy bàyyi mu jàll kon mooy admis na premier tour bi <laughs> waaw deuxième waaw tour bi nag maara détail na mooy boobu day fekk rey nañ ko ba noppi uh-huh. waaw xam nga deuxième tour <laughs> <laughs> bu ñu nag léegi nag ñu xool nag ndawal li ndax amul ci dara luy mandargaal feebar waaw bu ko amul ñu soog a nag ne jàll na deuxième tour ñu daal koy wékk ci benn chambre froide muy def li ñuy wax ressuyage am na ko ko fi wax léegi dañ si ci kanam mooy maanaam Euh, mooy xam nga booy jaw la yaakaar na ma ko wax. loolu tekkul dara du wékk ko rek bàyyi maanaam ndox yi nekk desoon ci yaramam ak deret di siit loolu dina génne ay ay yenn façon doomu jàngoro yi éviter aussi développement yenn yenn microbe yi gannaaw bu ñu ko reyee. Hmm, kon ñun bu tabaski dañ ko war a. moo ci moo ci gën. Ah. moo ci gën am na dëkk am na am na dëkk yoo xam ne plus ou moins vingt quatre heures. Ah. Euh, am na am na dëkk yoo xamante ne. <laughs> boo fa boo fa demee. Uh-huh. boo fa demee euh, Niger dégg naa ñu koy wax. ne bu bi nga xamante ne moom la ñu euh, rey ci tabaski bi. duñ ko laal ko laal dañuy jël beneen dawal moom la ñuy utiliser. waaw mm-hmm. ah, benn benn nag ñu bàyyi ko ba ci ba xëy si lañ koy soog a. Mm-hmm. soog soog soog a jëriñoo. Mm-hmm. waaw donc waaw loolu idée la. mu ngoog waaw. Uh-huh. léegi nag mais tabaski nag xam dafa xaw a doy waar mënoo rey sa xar rek bàyyi ko noonu. waaw mais nag li gën gaa kii daal. Uh-huh. mooy au moins dañ ko may euh, nga xamante ne bu ñu bu ñuy fees dañ koy dañ koy wékk. xam am na ñoo xam ne dañuy fees si suuf nii rek. Ah, mais boo wékkee di fees diggante ba mu ngay fees noonu lu ci bari mm-hmm. dina am dina dina am yu wàcc. waaw dina am yu wàcc. te ndawal mi nga xam ne da ngay rey rek daal koy jëriñoo. Mm-hmm. Euh, du maanaam taxul ñuy wax euh, viande si si waxu tubaab maanaam euh, du ndawal. Mm-hmm. suux la maanaam miskul la. matagul daal waaw matagul dafa gul maturation. waaw donc si wekk googu ñu koy wekk ci lay def. maturation bi waaw léegi loolu yëpp nag bu xasee ba dugg foofu nag kon chambre froide lay nekk. waaw duñ ko congelé parce que congelé tam boo ci duggee rek day indi processus. congelé nga ko donc li ngay congelé da nga war a fexe ba boo koy congelé na nekk ay pàcc pàcc de sorte que boo ko soxlaa da ngay dagg la nga soxla. waaw génne. da ngay jël la nga soxla daal di koy. génne seeyal waaw seeyal mm-hmm. euh, a ñëw noonu nga congelé ko da nga koy décongelé jël li nga soxla dugalaat congelé waat loolu kenn taamul ko. Mm-hmm. donc ñu ne kon bi nga xamante mooy li nga wax léegi chaîne de froid. bu jógee ci abattoir ba donc bu ñu ñëwee ci fañ koy euh, ci boucher ba. war na am équipement boo xam ne de réfrigération la. Mhm. Ah, boo xamante ne

set day dese set mais ku ci mën a am koo xam ne daal euh, dafa day am maanaam fu mu koy wékk fekk muy réfrigéré mm-hmm. yow mi ko jënd aussi euh, bu fekkee fa nga jëm soriwul mën nga bañ a soxla euh, glace mais nag bu fekkente ne dafay xaw a xëcc tuuti bu fekkente ne yor nga foo ne am nga glace si biir. nga def ko ci mooy encore li li gënati. Mm-hmm. doon du doon congélation mais seddal la rek daal maanaam mm-hmm. seddal pour mën a maintenir voilà pour mën a pour a maintenir bu eggee nag sa kër ga bu fekkee looy jëriñoo. nga jëriñoo ko bu fekkee loo xam ne da nga ko war a denc. da mhm. euh, nga ko war a congelé nga def ko ay pàcc yoo xam ne de sorte que boo ko soxlaa. Mhm. par mbuus ngay génne rek boo génne seeyal ko daal di koy daal di koy jëriñoo. waaw donc daal loolu mooy li nga xamante ne daal. moom la am lu may joxe ci conseil ci ci ci ndawal gi. waaw bu fekkee daal jëm ko ko ci bés ba daal jëm kër ga daal. diggante boobu bu sorewul mën na bañ a am benn problème bu lu xaw a jël temps nag moom foo nga def ci lu koy. lu koy seddal foofu nga def ci lu koy seddal waaw. tontu nga defe naa ci 24 heures yi. waaw exemple Niger bi nga joxe. mu ngoog mu ngoog euh, waaw si yenn jàngoro yi siitaale. ci loxo voilà très bien très bien. su mënee nekk moo gën. Mm. waaw moo gën. Euh, xarum moo xamante ne dafa daal di euh, dee. waaw mën nañ koo lekk wala ah man de. bu bu jékki-jékki rek deewal boppam. waaw man nag xam nga duma dugg ci ne ne mën na si na koo lekk ndax damay bañ damay bañ imam yi fekk ma fi ma toog waaw ah, ndax ñun ñii suñu diine am na lu ñu wax ci loolu. Mhm. Ah? Mhm. ah donc bu ñu wekkoo ci diine rek. waaw jàpp nañu loolu médd la. medd waaw medd la waruñu ko waruñu ko lekk waaye nag am na ñoo xamante ne dëkk yoo xam ne boo fa demee da fekk ñuy lekk medd. Mhm. waaw ndax. Euh, ñoom kiiwuñ ko aayaluñ ko waaw ko dëkk yoo xam ne dañuy lekk medd Guinée Bissau gi boo fa demee. am na ñoo xamante ne dañuy dañuy dañuy lekk medd. Mhm. am na ay jamono yoo xamante ne am na feebar bu ñu doon boo fa feeñoon am na feebar bu day am fii sax di am ci nag yi. ñu koy wax charbon bactérien Mm-hmm. Euh, jamono yooyu euh, am na sama benn naatango docteur Ousseynou Diouf ma koy nuyu au passage. ñu demoon fa benn euh, en tant que consultant benn mission. Mm-hmm. dem parce que tam boobu dañu def ay prélèvement mm-hmm. daa fa def leen jaaxaloon ba feebar bi laal doomu aadama yi parce que zoonose la. zoonose la encore waaw zoonose li ko indi woon nag. ba ñu defee jàngat ba gis nañu ne seen nag dañu doon dee ñu di ko ñu di ko lekk. Mm. fekk feebar bu moo moo indi loolu. kon voilà mu ko kon nag li nga xam dafa dee xamoo lu ko rey. ngalawaay ba ba fa. bàyyil mu dem bàyyil mu dem. Mhm. te moom beneen problème bi ci nekk mooy bu xasee ba dee noonu rek. Mhm. deret gaa nga des si biir yaram yi xam nga li nga xam ne mhm. dafa a a la. waaw waaw da nga ko war a bàyyi mu génn ba set wecc dee deret ji nekk ci biir yaramam commencé na sax coagulé wow def ay commencé way waaw ah, loolu yëpp nag day nekk source de contamination ay microbe mën cee développé ay microbe mën a jóge ci maanaam ci deret googu jàll ca ndawal la contaminé ko donc loolu yëpp mu nekk risque boo xamante ne wax ma sax lekk ga mais instant bi kay manipuler ko di ko voilà di ko fees voilà wóoratul waaw kon daal man loolu du ko du ma ko digal kenn d'accord yàpp bu ñoxul moo gën yàpp bu ñox nee na waaw loolu question de dañu ne les goûts et les couleurs ne se ne se discute pas <laughs> donc ku nekk ak ak ndax am na ñoo xamante ne Euh, boo demee seen ndëkk dañuy lekk ay seeña mais su le plan risque moom par rapport ak ay microbe maanaam bi nga xam ne ñorul. waaw moom dafa am waaw am ay risque waaw bi nga xam ne ñor na togg nañ ko mën na rey ay microbe uh-huh. mais bu ñorul nag microbe yi mën na cee mën na mën na cee ne. Uh-huh. donc ka nga xam ne moo ko jëriñoo noonu rek fekk togg ko ah, su boobaa mën na ci am ay. Euh, gàllankoor yu ko ci ko yu ci fekk te rek yaakaar naa ne nag ba nga xam ne dafa ñor nag mooy gën a nooy sax faf xaw ma nag <laughs> mooy gën a neex sax <laughs> d'accord moom ñaa la ñuy àndal Louga waaw nee na diggante Daaka Jolof ba Louga Daaka Jolof ba Louga waaw gis na ne daal seen jur yi sonn nañu mm-hmm. euh, dañu daal di loof ñu ci bari dañu xaj jur ga dañu jeex takk takk takk waaw dafa mel ni ñoom amuñu personnel qualifié waaw bu mën a faj jur gi uh-huh. euh, nee na càmm gi foofu daanaka daal dee na mm-hmm. traitement maa yi ngeen di faral di jox pour jur gi itam efficace wul. ñoom loolu la ñu constaté. Mhm. beneen bi itam mu wax ci coronavirus bi. waaw euh, nee na euh, rek li nga wax sànq. Euh, jëfandikoo mala boo xamante ni mi ngi dund. waaw loolu moom xel nanguwu ko. Mhm. te itam. Mhm. nekk na loo xamante ne ku koy def itam yaa ngi ci ay risques. dëgg la waaw waaw lan nga xalaat ci ay. waaw jaajam ak contribution. voilà gox gox boobu mu wax noonu xam naa ko bu baax a baax dafa dem naa fa mission ba tàyyi. waaw diggante Louga ba ay Daara Jolof ay Linguère waaw mm-hmm. wax dëgg yàlla dëkk la boo xamante ne zone la boo xam ne zone waaw zone d'élevage la mm-hmm. zone d'élevage la waaye nag muy euh, ruq boo xamante ne nawet bi dafa gàtt lool dafa gàtt ah boo ko doon méngaleeg fu demee ne ay ñoom euh, Tambacounda Koumpentoum zone yooyu mm-hmm. ah, ñoo gën a gudd ay Kolda Kédougou ñoo gën a gudd nawet kon fii nawetam dafa gàtt ba loolu mooy indi sax éleveurs yi nekk foofu di màng yenn saay voilà di dem ci yeneen yeneen zone moom ñu koy wax transhumance mm-hmm. euh, li mu wax dëgg la xam nga euh, euh, cabinet vétérinaire fu ñu koy installé fu nekk day fekk ne aussi ka fay installé jàpp ne su ma ko fi tegee dinaa si mën a am li nga xamante naa ci génn mm-hmm. voilà exactement xam nga Euh, même pharmacie yi jaay garabu doomu aadama yi. Uh-huh. am na ay jamono boo gisee a pharmacie da ngay dem lu yàgg. lu yàgg doo ko gis maanaam bu xas kenn xas ba nekk fii amatoo droit ubbi fii. Uh-huh. périmètre bi dañ voilà mais périmètre wax na léegi. wàññeeku na bu parce que jamono yooyu xëy na la demande était relativement uh-huh. yokku na nag ah ñu yokk aussi emplacement yi. waaw médecine vétérinaire même la. dëgg la boo Louga am na ay cabinet vétérinaire yu nekk biir Louga lu tolloog ñetti cabinet vétérinaire ñu ngi fa samay naataangoo yu fa ne ma xam leen bu baax a baax. ñu ngi biir Louga. Mm-hmm. mais comme ni ko kenn ki waxee euh, am na ñoo xamante ne ku daan sëñ Mor ña ma ko xam am na ko wax daal si kër waaw. waaw mais vétérinaire yi dañuy yor seen oto boo leen wooyee mën nañ déplacé ba ñëw fekk la. Mm-hmm. fa nga nekk. Mm-hmm. loolu nag mooy problème bi ndax xam nga kiy déplacé wu jël otoom def ci carburant ñëw fekk la ba ay kilomètres yi kilomètres. mais te bu ñëwee ba leen ne affaire bi nangam la. wala nangam moo koy faj. waaw yenn saa sax nga gàntal ko de ah man kat comme de benn noonu xaw ma noonu la waaw waaw mu waaw ngi noonu. Mhm. nga war a yëgër-yëgër waat delluwaat xam nga loolu day xaw a day xaw a day waar. waaw néew ma a gox boobu loolu ma fa am mais xam naa ne daal euh, boo xasee ba génn Louga diggante Louga ba Daara effectivement amatul cabinet bu docteur vétérinaire yore. waaw mhm. ah, cabinet yan cay fekkaat Daara nga leen di fekkaat boo génn Daara fekkaat leen Linguère mhm. mais diggante Louga ba Daara. diggante bi amul cabinet docteur vétérinaire. docteur vétérinaire. léegi nag kon nu ma ko doon waxee sànq pour docteur vétérinaire mën a installé ci diggante boobu na fekk ne aussi éleveurs yi am culture boo xamante ne danañ koy soxla di dem ci moom ba tax moom mu sawar faat toog ndax boo demee ba dëkk ba ñuy wax par exemple Bulal diggante Louga la ak ak Daara foofu dañ fay fekk ay jur yu bari ndax yoon la boo xam ne dañ fay jaar pour dem di naani ndax dañuy am ñu nekk ci àll bi seen nag yi dañu am fu ñu naanee. Mhm. par ñaari fan lañ leen di. dàq yóbbu leen ñu naanee foofu ñu naanee ñu ñu ñu delluwaat. muy zone boo xam ne kon day bëri fa nag yi di jaar transit la voilà mais bu jaar lu mu bari bari nañu lool mais duñu soxla vétérinaire bi comme ñi ci soxla vétérinaire ak as néew la. du jaral vétérinaire mu installé fa ab cabinet. Mhm. waaw kon yooyu mooy indi. mooy indi voilà mooy loolu. léegi nag leneen nag ndax vétérinaire yi si aussi ñuy faj du du wër est-ce que dañ dul ay professionnel waaw mais nag euh, euh, xam nga vétérinaire mhm. euh, dafa bëri ñu koy mu boote nekkuñu ko yenn saa yi nit dina ñëw ne la vétérinaire la fekk fekk du vétérinaire ndax un docteur vétérinaire dafa am gannaaw baccalauréat juróom-benn at yu muy jàng mm-hmm. am doctorat bu tolloog doctorat bu médecin bu buy faj doomu aadama mm-hmm. wala bu dentiste wala bu pharmacien ñoo tolloo niveau kon docteur boobu lépp lu muy def rek dina ko def de façon professionnelle waaw mm-hmm. ah, bu fekkee nag ah da nga gis keneen koo xam ne ñëw na ne la vétérinaire la ko bu jàpp ne ay mala la rek def ci lu ko neex. su boobaa échec yi mën naa bari. waxuma te waxuma échec rek yem ca. waaye mën na jël say jur fikir ci ay garab yoo xamante ne mooy loolu baaxul wala ay garab yoo xam ne fraude la su ko defee yow mi nga xamante ne nag yaa ngi ratt soow ma di ko naan garab yooyu da jàll ci soow ma encore muy beneen problème waaw voilà muy beneen problème muy li ñuy wax les résidus mm-hmm. loolu yëpp nag dugg sa yaram di la nekk ay tooke bu fay dajaloo. di laal say res wala di laal say say say rein maanaam ay insuffisance rénale ak yooyu yëpp. mën na mën problème voilà noonu donc loolu yëpp daal def attention mais nag euh, loolu yëpp samay euh, explication la euh, mais comme wax na ko ba mu jib ci rajo bi. Mm-hmm. Ah, ñi nga xamante ne aussi ñoo yor wàll woowu. ah xëy na aussi ñu bàyyi ci xel bu ñu ko déggee bàyyi ci xel ba nga xamante ne dañu xool gox boobu foofu la mooy problème ba ah, ak ban solution lañ ci mën lañ ci mën a def d'accord waaw moom ak defe naa la ñuy boole mhm. ci seen laaj yu mujj yi euh, ki ci Kaolack daf ne nit ñi dañu war a bàyyi xel bu baax a baax a baax ci li ñuy lekk mhm. euh, bàyyi xel aussi ci ni ñuy abattre waaw ni ñuy ni ñuy euh, feese mala bi ni ñu ko war a reyee waaw ak xeetu lekkin wi. waaw ak suñu relation ak mala. waaw dañ ci war a bàyyi xel. waaw waaw euh, nga baal ma rek balaa maa sori parce que xam nga Mor Niang. waaw ne woon na euh, loolu xaw na ma màkk tuuti. Mhm. mun a jóg bu dinañ feebar ba nga xamante ne bu leen yëkkati sax day dugal yat pour yëkkati leen loolu ma dama ko assister à plusieurs fois. du ñu mën a tëju voilà nag bi day dem ba ne laaj. du mën a jóg léegi su ko defee dañuy jël bant dugal ko ci suuf ron ko comme kel. Mhm. ron ko suuf am ko fii. ñu daal di force waaw pour pour mën a taxaw loolu nag euh, day taxaw si ñu ñu xam loo ko ne euh, bu li ñuy gën a bari mooy jamonoy noor hmm. lekk bariwul euh, jur gi xaw a loof voilà dañuy loof hmm. donc loolu mën indi indi loolu donc su ko defee loolu fexe di jege vétérinaire mu lay jox conseil voilà jamono jooju ban lan nga ko war a defal pour mu bañ a loof waaw mais aussi am na feebar boo xam ne bu ñuy wax maanaam botulisme ñu koy wax laaj muy feebar boo xam ne Euh, bu jàppee euh, mala bi tamit day jàpp cër yi ba nga xamante ni am kàttan pour maanaam muscle yi dootuñu contracté wu. Mhm. naan une paralysie flasque day lappax. Mhm. waaw yooyu aussi am na ñàkkam am na ñàkkam donc feebar boobu aussi dina def lu mel nii maanaam loof bi daal ak euh, làcc bi. dinañu def lu lu lu mel noonu kon loolu ñu ci bàyyi xel ñu conseil ñu ko jox pour di jege vétérinaire. waaw balaa ñuy dugg ci jamono jooju. mu defal ko ay prévention yoo xam ne mën na ko may mu moytandiku. mu moytandiku loolu. d'accord waaw. Euh, Ngexen Pël Daouda Sow. waaw nee na dafa jël émission bi en cours. Hmm. Euh, bëggoon nga dellusiwaat un peu ci coronavirus bi. waaw lan mooy lu koy indi. Hmm. lan moo tax mu gaaw nii. waaw ni muy lawee gaaw ci biir dëkk bi. waaw itam fàggu ak euh, yan jafe-jafe xëy na peut la ci. la ci nit ñi gis xëy na peut-être ba euh, muy law nii te mënuñu ko téye. waaw mhm. euh, coronavirus bi dama koy waxaat rek euh, baamtuwaat ko mais feebar la boo xamante ne maanaam coronavirus la ñuy wax waaye nag comme nit ñi. waaw baat bi moo gën a siiw rek boo waxee coronavirus la ñuy xam lan la mais coronavirus mooy doomu jàngoro bi la rek. Mhm. Ah, mooy doomu jàngoro bi la dafa mel rek tey nit amoon. feebar boo xam ne infection la ñu naan ko bactérie bi bactérie la bactérie. waaw ah, bactérie mooy doomu jàngoro bi. Mhm. léegi fii coronavirus boobu day joxe feebar bi ñuy wax coronavirus coronavirus bi nag ay façon yu bari la ay façon yu bari la euh, yi nga xam ne nag moom lañ jànkonteel ak fi mu toll nii euh, bokk ci xeet yi nga xam ne dafa xaw a méngoo tuuti ak yi nga xam ne ñoo fi amoon at yële weesu mm-hmm. muy ay 2002 ak 2012 euh, ñu joxe woon yenn yu jógoon si njugub mm-hmm. jaar ci yeneen mala ba egg ci doomu aadama mm-hmm. waaw bii nag jàpp nañu aussi am na ci mala la war a jóge mais jàngat yi ñu ngi continuer pour confirmer ko jàngat yaa ngi continuer pour confirmer ko léegi ni ñu koy moytandikoo nag moytandiku euh, mooy rek def attention bu baax a baax mm-hmm. euh, fii ci Sénégal jàpp nañ ne kenn amugu ko fi waaye nag euh, di moytandiku surtout ñi nga xam ne dañuy jóge ci yeneen réew yooyu nga xam ne moo am lu mel noonu war a fee ñëw ak ainsi de suite wala jóge ci yeneen dëkk sax yu bokkut ak yooyu. Mm-hmm. waaw bu di moytandiku buñ ci gisee koo xam ne yaa ngi sëqët wala yu demee noonu yaa melokaan boo xam ne xëy na war na mën a méngóog mandarga feebar boobu mel ni sibiru daal wala grippe. waaw ah, ñuy def attention. Euh, euh, moytandi ko ñuy saqat muy dal suñu kaw boole encore di raxas suñuy loxo ak euh, saabu ba mu set bala ñoo lekk lu ñuy togg ci ndawal wala lu jóge ci jur dañ ko togg ba mu ñor mm-hmm. hmm, soo koy soo soo soo koy lekk waaw moytandi ko aussi di jege rabu àll yi mm-hmm. waaw loolu ay waaw surtout sax suñu mbokk éleveurs yi xam ne ñu ci àll boobu waaw waaw kon moytandi ko rabu àll yi waaw Mbàkke la woote hmm. sàmmkat la neneen saa yi da ngay gis lu demee ni grippe waaw ci jur gi. waaw nee na booy tëdd doo leen ko bàyyee waaye da ngay yeewu rek fekk ci ñoo xamante ne dafa mel ne dañuy socc. waaw euh, muy xelleeku. waaw nee na yenn saa yi nag ñoom dañ koy def yëfi ngéyeen rek. waaw euh, du ñu dem seeti vétérinaire bi. nee na ñuy daal di jël rek. daal di euh, faat. waaw daal di koy jëfandikoo nee na est-ce que c'est la meilleure solution. waaw loolu aussi daf may delluwaat tuuti rek. ci la li ma doon wax sànq ki nga xam ne dafa laajoon ndax lu dee ba pare mu des na koo lekk. waaw bon lu dee ak luy waaj a dee daanaka booy xool rek sor sor soreewuñu waaw ndax gis nga bu dekkee si diin ak lislaam dañoo ne lu feebar kenn waru ko kenn kenn waru koo euh, jëfandikoo. Mhm. pour di ko lekk. Euh, kon li nga xam ne feebar même bu fekkee sax yow xëy na gis nga ne. Euh, dafa feebar jàpp nga ne dafa nar dafa nara a parce que ni mu ko waxee fanaanoo wu ko xëy rek gis ko. Mm-hmm. Euh, xar mi commencé mel ni luy waaj a dem. waaw bu profité pour bañ koo ñàkk mu ne kon xaaral ma rey ko. Mm-hmm. waaw bu fekkente ne rey na ko liñ koy digal kon mënu ko bàyyi mu dee noonu bu fekkee rey nañ ko. waaw mënu ko mënu ko waaw liñ ko waaw liñ koy digal. Mm-hmm. moo dina kat bu fekkee am na fu ñu ko denc. mu denc ko fa. ba vétérinaire ñëw xoolal ko ko. Hmm. waaw xool ko ndax yenn saa aussi am na feebar yoo xam ne. Euh, li mu rey bu fekkente ne maanaam jur gi dafa feebar. ñu rey ko mënees na ko mënees na ko lekk. waaw parce que feebar boo xam ne mën na mën na wàllu doomu aadama. Hmm. mais il faut euh, vétérinaire euh, ba noppi. Hmm. ba xam ne kat kii bokkul ci fa xeetu feebar boo xam ne mën na lor doomu aadama. waaw donc mais tant que amul loolu ba daal man li ma koy conseillé. mooy mu bañ koo jëriñoo ndax tam la taxaw bu feebar ba feebar bi gaaw noonu. ba ba war ko a yóbbu. xamuñu lan la mën a nekk tooke. waaw donc mën a nekk leneen loo xamante ne aussi mën na indi loraange ci doomu aadama. waaw te li ci gën a dangereux toujours rek mooy li ma koy waxee euh, Sénégal ñaari la ñuy togg ba mu ñor. mais kon problème surtout li ngi xam ne mooy nekk problème mhm. mooy bu ñuy manipulé mhm. waaw fees bi diggante fees bi laal der bi. muy gën a poussière nga koy nooyi. voilà loxo yi sax ngay kii maanaam gis nga toq deret tuuti boo xam ne sax gisuloo ko. Mhm. mën na am ay millions microbe bien waaw kon si ni koy daggee rek léeg-léeg mën a toq si booru bakkan leen léeg mën a toq sa gémmiñ et cetera waaw loolu daal lay nga daal koy war naasu te fekk yëguloo ko waaw donc moo tax daal ñu war a def très attention manipulation bi daal li ci gën a bari sax mooy indi ay ay problème jafe-jafe waaw booy jaw la ñuy mujjee hmm. euh, nee na éleveurs yi nga xam ne yëpp dañu sérieux waaw dañuy dem ci vétérinaire uh-huh. dañuy am seen vétérinaire bu leen di xoolal jur gi waaw euh, ndax moytu lu demee ni ay zoonoses ak yooyu uh-huh. mu ne bëggoon na ñu gën a renforcer sensibilisation bi waaw wax na aussi que rendi rek lekk baaxul c'est pas bon. Uh-huh. Euh, wax na jet hydrique. waaw ci suñu waree euh, fees suñu mala yi. waaw temps bi ñu war a observer. waaw euh, wax na aussi que dañoo war a élargir vaccination bi ci cheptel bi gën ko yaatal. waaw yeneen difficulté yi mu ci wax aussi mooy yenn saa yi taxaw ba war a ñàkk. Mm-hmm. ñu gis ne yenn vaccin du am du disponible. Mm-hmm. Mm-hmm. yëpp mu ne ministère ak xëy na ordre des vétérinaires. médecins vétérinaires. war nañu gën di ci bàyyi xel. leneen li mooy aussi nee na ñi yore ay mala lu demee ni ay fas ak ay mbaam di ko jëf di leen liggéeyloo. waaw ñu leen di apporter mais du ñu wëlbati ko entretenir ñooñu le mm-hmm. ndax ñooñu ñoo leen di jox waaye da ngay gis ne jur gi ngi nekk ci situation boo xam ne mm-hmm. vraiment mm-hmm. boo ko xoolee rek nga xam ne nekkul kii dans de bonnes conditions c'est ça waaw dëgg la Euh, moom Boy Diaw ñu ngi koy euh, ñu ngi rafetlu intervention man sax dem naa ba ko waaj laaj na ko yow. Euh, ba Boy Diaw la ndax yow. daal dafa am koo xam ne xam na mbir mi lool. Ah, waaw surtout surtout bi ma limalee maanaam maladie yi nga xamante ne ñoom la ñuy boole ci campagne de vaccination bi. waaw ah, moo xam voilà bi ngeen cité donc. yooyu yëpp mu cité ah, na ko daal waaw miin na ko daal waaw xam naa daal bu dul technicien daal nga xam ne aussi. Mhm. waaw éleveur bu mag bu mag a mag la. <laughs> waaw ñu rafetlu intervention comme lu mu wax rek éleveurs yi nga xam ne gëm bi. dañuy am ay vétérinaire dëgg la waaw def ay moyens am na kër yoo xam ne boo fa demee euh, seen seen i waaj seen i njaboot dañu leen tooñ. Mhm. naa leen kër gi daal nekk fi xar moo gën nekk fi nit waaw waaw <laughs> <laughs> que voilà très bien donc wax dëgg yàlla rek pour delloo njukkal ñooñu pour wane ne na gisee ñoo xamante ne xëy na dañuy taqale voilà am na ñoo xam ne jox la ñu gëdd waaw jox la ñu gëdd ay exemple à suivre la ñu am na bu baax a baax mhm. Euh, sensibilisation bi ñuy def nii sax sensibilisation la bokk waaw kon ñu ngi sant waa Sud FM di la sant yow Ndeye Khady ndax si yow la jaar mhm. waaw lii wax dëgg yàlla ñu koy soxla pour sensibiliser askan wi mhm. mais bu weesoo loolu ñun luñ ci mën rek ci ay réunion ak ay producteurs dañ koy def toujours dafa bokk suñu liggéey mhm. euh, ak suñuy partenaires donc la ñuy def ay réunion di dem ci àll yi gis nga lay limal dëkk yi may dem euh, dañ cay dem di waxtaan ak éleveurs yi waaw di leen yéen lu bëri ci lu mel ni même fii Dakar sax ko fi def bu ñu amee bi ak résilience bi wax na ko mooy maanaam bala ñuy rey jur gi Euh, bu dee xar la par exemple ñu ne deux heures avant ñu nañ ko bu mu lekkati day naan rek. loolu sax jamonoy tabaski dañ koy digal nit ñi ndax dañuy gis koo xam ne day jël xar bi bàyyi ko mu fanaan ak ngooñ ak ripaas. waaw mu xëy mu daal koy fàdd. Mhm. waaw boobu boo mbàq ba fekk. waaw fekk ko ci biir mais amul sens. amul sens booleeg aussi biiram du noppalu. Mhm. du noppalu donc dañu war a bàyyi biiram mu noppalu. ñu koy jox ndox kese mu naan. Mhm. di ko naan muy raxas yaramam ba comme ça su ko defee yenn microbe bi sax daal di fay jaar daal di génn. waaw tooyal yaram a gën a neex par rapport ak rupture vaccin yi maanaam ñàkk yi xaw a manqué yenn saa yi dëgg la wax na loo xam ne euh, am na mais xam nga nag mbir mi mbiru doomu aadama la. waaw yenn saa am ay jafe-jafe waaye nag si jafe-jafe yi la ñuy jàng pour mën a corriger corriger leneen. waaw amoon na ay jafe-jafe waaye nag loolu wàllu woowu. comme ni ma ko waxee rek ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yore ndax lii wàllu ordre du vétérinaire la ak surtout sax ministère de l' et mhm. de Euh, ñu ngi koy def waaye wax bëgg yàlla mhm. euh, yenn saay vaccin bi manqué. Mhm. waaw su mànkee nag day indi ay jafe-jafe. waaw pour mën a couvrir parce que ni mu ko waxee dafa leer nañ bu fekkente euh, motul ñu ñàkk fi bàyyi fële am na sax keneen ko njëkkoon a wax. Mhm. ñàkk fi bàyyi fële day mel ni mook mook zéro ñoo yem. waaw ndax ñi nga ñàkkul bu ñu amee mu daal di mu daal di. mu daal di law waaw. jeex na defe naa. waaw laajoon na waaw laajoon na affaire aussi fas yi ak mbaam yi. <laughs> voilà loolu aussi seen entretien. dëgg gu wër péng la wax. Mm-hmm. yow lii nee nga yow moom ngay li ngay suturloo moo la koy jox. waaw mais nag wax dëgg yàlla mais toppatoo ko ba nga xamante ne kenn lu dul feebar moom amut. luy dund lu dul feebar amul. Mm-hmm. mais nag defal sa sa sa sa sa kéemtalaay sa waru gar uh-huh. mais nag bëri na si ñoo xamante ne wax dëgg yàlla. da nga koy exploité waaw mais la ci war ci moom ci faj. waaw duñ ko duñ ko duñ ko faj waaw te loolu nag normal loolu loolu dafa bokk ci droit moom mhm. waaw droit ce qu'on appelle le bien-être animal waaw dafa am lu ñuy wax ay droit yoo xam moom la ñu am ñu koy wax sax liberté mhm. waaw mhm. du ko dëkkal fu baax ci la bokk di ko jox muy muy muy lekk ak yeneen ak yeneen ci la waaw di ko sang donc loolu yëpp ci ci la ci la bokk waaw kon et puis moytu di ko bañ a métital waaw la ci la bokk te comme ni mu ko waxee yenn saa yi ñuy dóor ci waa di dóor di dóor ci waa yàlla yi te xam nga loolu dafa doy waar mm-hmm. léegi nga dóor ci kaw yaram sax waaye da ngay xool fu mu gën a safee nga di ko fa nga di ko fa dóor loolu yëpp ay ay ay problème la wala nga yëpp ko ba nga xamante ne du benn du ñaar romb naa ci kaw tali bi fas bu daanu mbàpp tànk kanam yi mm-hmm. gars yi jàpp ci brancard bi waaw chargement bu tuuru ah, donc loolu yëpp daal Euh, borom bakkan lañu. ay comportement yi ñu war a changé voilà a changé la nañ leen jëriñoo dëgg la ndax yàlla bindee noonu euh, àdduna. waaw waaye nag aussi nañ leen jox seen ak. ñu dawal ci yërmande yërmande uh-huh. waaw loolu la. Euh, monsieur Diallo Kounoune. waaw nee dafa remarqué woon ay at a ngi nii ci ginnaaw dafa doon opération. waaw pour rey xaj yi nga xamante ne. Hmm. dañu ràmm waaw. nee na est-ce que opération yooyu ñu ngi koy def ba léegi ndax daf ko xaw a gëj a gis. waaw euh, leneen ni mooy euh, ci wàllu yoon dañu wax ne tout animal mordeur. Euh, mhm. bépp animal boo xamante ne dafay mën na matt waaw dafa war am carnet de santé. Mhm. ndax carne de santé yooyu ñu ngi koy respecté. Mhm. ndax itam ñu ngi def ay contrôle inopiné maanaam xëy rek bett. ki ko yor. xool ndax mu ngi suivre carne bi liñ ci bind et tout. ak itam euh, ndax euh, li ñu ko sant ci wàllu wàccuwaayu yor euh, mala yooyu mi ngi koy toppatoo. voilà lii aussi pàcc bu am solo la ndax day pàcc bi nga xam ne dafa bokk ci li nga xam ne mooy xeex feebar bi ñuy wax feebaru say mooy rage. Mhm. xaj ji li ci gën a bari di ko jox doomu adama waaw abattage yooyu muy wax. même man maa ngi fàttali ko ba ñuy gën a nekk xale. Mhm. waa service des jeunes dañ daan war yenn saa di ramasse xaj yi. xaj yi waaw. ñu dem ba jamono loolu loolu amatul lu ci gën a bari sax municipalité ñoo ko doon jël en waaw ñu dem ba ci biir loolu xaw a euh, manqué waaw xaw a sooxe ah. xëy na nag xëy na ay problème moyen la euh, mais ñu xam ne aussi ministère de l'élevage et de production animales euh, par yenn saay ñu def ay opération d'abattage mm-hmm. donc lu ñuy def dañuy jël ay ndawal def ci benn xeetu poson mm-hmm. fekk fu xaj yi di faral di daje ñu sànni ko fa waaye nag repérer fépp fu ñu ko sànni ndax poson boobu dafa xaw a doy waar dafa dangereux pour bañ nit jël ko ko fa sànnee Euh, ñu ko xëyee fekk xaj am ñu ko lekk dee nanu ñu ramassé xaj yooyu jéem ut fu ñu leen ni suuli mm-hmm. jël ay matuwaay nag yu mot yu yu doy. waaw bu fekkente nag euh, kenn benn xaj laalu ko ñu fekkaat ko fa dañuy jël récupéré waat ko. Mm-hmm. kenn war ko bàyyi dans l' environnement. Mm-hmm. parce que c' est c' est dangereux. léegi nag poson boobu nag ñuy jëfandikoo. Uh-huh. moom aussi yenn saa mu xawoon manqué. yenn saa mu xawoon manqué. parce que yooyu yëpp ay budget moo ko la ñuy définir moo koy permettre ñu koy mën mu xaw ba tax na. di nga toog ay diir yenn saa yi doo gis euh, maanaam ñuy rey euh, xaj yooyu. Mm-hmm. mais ñu jàpp ne lu fait que ñuy rey xaj yi benn la ci pàcc yi nga xam ne mooy tax ñu xeex feebar bi. Mm-hmm. Euh, lu ci gën a bari xaj yi fi ñuy dajaloo rek day fekk ne am nañ fa lu ñuy lekk. Mm-hmm. mba fi ñuy tuur ay mbalit. di ko fa sotti. toujours xaj yi dañ fay dajaloo dañ fay waaw donc le dépôts sauvages d'ordures. xaj yi dañ fay sawar fa la dajaloo. di fa lekk di jote foofu nag si biir jote bi seen jur gën a bari. Mm-hmm. di reproduire seen jur gën a gën a gën a bari mais aussi si daje ba ñuy daje. Euh, wokkante dina ci am mattante dina ci am. feebar yi gën fa la loolu la. donc pour ñu xam ne rey bi dara la. waaye mesures yi nga xamante ne mooy lépp loo xam ne maanaam nettoyage boobu tax ñu ne une seule santé. Mm-hmm. environnement animal être humain tout est uh-huh. waaw kon ñuy jël jëm a setal environnement bi. setal googu ñu koy setal dina tax xëy na bu yàggee xaj yi bu ñu amatul lu ñuy lekk seen développement dina gën a dina gën a néew waaw donc maanaam du benn pàcc rek mais pàcc yu bari lañ jël mettre leen ensemble mm-hmm. léegi mu ne bépp xaj boo xam ne mordeur la maanaam da ngay màtte wala griffeur wala da ngay xuri mm-hmm. da nga war a am carte de vaccination mm-hmm. euh, du xaj bu ñu neex un chien mordeur ou griffeur day fekk ne xaj ba maanaam xaj bi matt na wala griffé na day fekk ne mu def ko ba noppi xaj bu ñëw fekk doomu aadama màtt ko waaw wala xaj bu ñëw fekk doomu aadama daal koy xuri. parce que fii wax na waxu chien de race yi. waaw maa ngi ñëw ci loolu. waaw ah, bi nga xam dafa ñëw fekk doomu aadama. Mhm. ma màtt ko wala mu ñëw fekk doomu aadama daal koy griffé. xaj bu mu mënta doon moo xam bu race la moo xam bu bu mbedd la. Mhm. wala wala boo xam ne beneen borom kër moo ko moo ko moom te bokkut ak xaju race yooyu. Euh, su boobaa lañ koy tuddee chien mordeur ou griffeur. ah waa docteur suñu xasee bàyyi ba mu. non non ma ma expliqué foofu uh-huh. moom la un chien mordeur rek. waaw di nga xam ak dama daan dama daan dama daan xaj bi dafa màtt xas na màtt su boobaa nag dañuy jël ay motuwaay. Uh-huh. motuwaay yi mooy lan mooy ka nga xam ne moom la xaj bi màtt fu mu ko màtte wala mu xuri ko ñu jël saabu ordinaire raxas ko ba mu set daw ci centre de santé ñu defal ko prise en charge donc traitement post exposition mhm. parce que dañuy jàpp ne xaj bu xas ba màtt rek wala ngay euh, xuriwaate rek dañuy jàpp ne xaj boo xam ne am na feebar rage mm, ni ngi amee say bi waaw dañ koy loolu dañ koy jàpp rek pour maanaam pour wóoral waaw pour wóoral ndax feebar la boo xam ne bu feeñee si doomu aadama mhm. amatul faj day dee xaj bi si boppam bu ko feeñalee mhm. moom it day dee amul faj donc aar bi moo ci màtte rek ñu ne c'est un chien mordeur on le mettre en observation mettre en observation bi mooy ñu fi ñu ko denc di ko seetlu di toll fukki fan ak juróom bu fekkente amoon na maanaam ba muy màtt wala ba muy xuri amoon na doomu jàngoro bi ci tuflitam mhm. wala ci ay weyam parce que weyam laa la tuflitam su boobaa du weesu quinze jours te sayul carrément ba ñu gis ne mi ngi say mhm. wala mu daal di dee lu muy saye day yuuxu yee bari waaw day day agressif mhm. maanaam day day attaqué waate boo ko tàllee bant bu fekkee dañ ko denc fenn boo ko tàllee bant muy màtt bant bi mhm. xaj boo xam ne dafa nekkoon xaj bu a day aytal daal voilà day soppi comportement waaw donc changement de comportement gémmiñ gi tam di fuur ak yu demee noonu mhm. waaw mu yaru la day jékki-jékki daal di soxor agité daal agité voilà loolu yëpp ay mandarga mandarga feebar bi la waaw donc su boobaa xaj boo xamante ne dafa dugg ci euh, domaine boobu dañ naan que léegi xaj bi dañ ko soupçonné mu am feebaru say ah, mais nag ki ñu wax ne moo war a am carnet de vaccination mooy bépp xaj moo xam mordeur la wala nekkul mordeur moom ci mënti doon waaw bu mu si yoon dañ ko war a ñàkk contre mm-hmm. la rage mm-hmm. yow mi xaj bi xaj bi dafa war a am carnet de santé mm-hmm. at bu ne gën ngaa néew benn yoon ci at bi gën ngaa néew nga dem seeti vétérinaire mu renouveler vaccin bi waaw vaccin ba buñ ko xasee ba tey mën na ko yore at buñ ko ñàkkee feebaru say mën na ko bañ a laal su ko mhm. defee moom kon mën na bañ a wàll doomu aadama ndax moom aar nañ ko mhm. donc législation effectivement ni mu ko waxee dafa ne ku am xaj moom ko ne xaj bi man maa ko moom da nga ko war a ñàkk mu am carnet de vaccination comme ni ma koy wax faral di waxee souvent dama naan euh, dafa mel ni rek euh, nga yor fetal mhm. pour nga am ko da nga war a am permis de port d'arme kon xaj bi aussi permis de port d'arme bi mooy carnet de vaccination su màttee nit mën nga ci am ay jafe-jafe. léegi nag ndax dina am ay contrôle inopiné yu ñuy def. waaw waaw pour être honnête euh, contrôle inopiné àgguñu foofu. Hmm. pour xëy rek dugg ci kër yi naan seen xaj yi ngeen yor ndax am nañu carnet wala am ñu carnet. àggaguñ fa waaye nag ku nekk na nga xam ne euh, maanaam na nga nekk sa contrôle lu bopp. Hmm. ndax feebar bi nga xam ne moo tax ñu tax ñu ne xaj bi na am carnet bu ko xaj wàllee doomu aadama kooku mën naa dee. te bu dee sa xaj la yow nag tuloo ko ñàkkuloo ko woon kon responsabilité bi <laughs> say sa mbagg la nekk kon ku nekk rek nekkal sa contrôle bopp mhm. waaye nag ñu xam ne bu fekkee amuloo euh, am nga xaj te amul carnet ñàkkuñu ko bés bu màttee nit bu am si jafe-jafe bu ñëwee ci vétérinaire ba ñu xool carnet bi su boobaa nag yoon la daan waaw lu dal doomu aadama bi dañ ne yow yaay responsable mhm. parce amuloo euh, carnet bu nekk à d' accord waaw kon nañ ci bàyyi xel. nañ ci bàyyi xel waaw muy borom xaju raas yeeg wala ba mu budul xaju raas lépp waaw. Mhm. Uh-huh. Euh, waxtu wi daanaka jeex na docteur. mais uh-huh. bëggoon naa xam ci wàllu jën. waaw ndax am na ay xeeti zoonose yoo xamante ni itam mën na fa jóge ñëw ci ñun. am na jën yi aussi am na ay xeetu zoonose xam nga sànq bu ñu nee zoonose parasitaire. waaw parasitaire donc jë jën yi seen suux mën na denc ay ay ay ay parasites waaw ah, parasites yooyu mën na dem ci ci ci doomu aadama mhm. waaw donc li ci gën a bari mooy xeetu xeetu xeetu zoonose parasitaire mais bu fekkente ne yeneen euh, xeetu zoonose yi daanaka mën ne daal bu nekkee jën la dafa xaw a dafa xaw a néew mhm. waaw mu bëree ci yeneen euh, ci li ñuy wax ay mammifères mooy maanaam ñi nga xam ne euh, bu ñu wasinee dañuy nàmpal seen doom mooy mammifères yi mhm. bu fekkee ñooñu la fa la gën a bëri que si que jën mais ñu jàpp ne que aussi jën mën na am xeetu xeetu xeetu feebar yooyu mais nag euh, ñu ràññetle zoonose ak li nga xamante ne comme dama ne sànq zoonose mooy feebar boo xam ne mën na jóge ci mala dem ci doomu aadama wala mu jóge ci doomu adama dem ci ci mala waaw tant que amuñu ñaari condition yooyu rek nekkatul voilà nekkatul nekkatul zoonose mhm. ki nga xam ne par exemple yaramam nanguwul jën waaw mu lekk jën ba def ko allergie. Mhm. loolu du zoonose. déedéet allergie la waaw parce que yaram yaramam moo nag moo nangoo jën waaw donc yooyu aussi foofu ñu def. ñu leeral euh, waaw ñu leeral ko def différence différence bi. ci zoonose yi gën a dangereuse a mortelle fii ci Sénégal. waaw xam muy Sénégal ak feneen a yem. zoonose <laughs> zoonose la rek. waaw moom <laughs> uh-huh. euh, dama leen ne sànq am zoonose majeure ak zoonose mineure. Mhm. majeure mooy soxor yi. waaw yu soxor yi nag ba ma ne en tête mën nañu wax feebaru say ndax feebaru say dañu ne bu laalee doomu aadama bu feeñee si doomu aadama wala ci mala bi sax amatul faj dee rek dee rek amatul faj wala bokk ah li ci gën a bari bokk ndax yàlla aussi borom kenn tam la uh-huh, <laughs> waaw waaye daal uh-huh. ñu jàpp ne daal uh-huh. eh, ki am feebaru say moom deful ndànk daal waaw waaw waaw li ci gën a bari moom borom day day daal di dee kon ñu xam ne kon mooy bi nga xam ne amul faj Mm-hmm. borom day dee bu feeñee de borom day dee moom mooy bi gën a soxor bi donc rage ci la bokk. waaw beneen bi nga xam ne aussi mën na rey borom à petit ndànk-ndànk tuberculose ci la bokk. Mm-hmm. tuberculose ki ko am waaw bu fekkee amul prise en charge bu jaar yoon rek respecté ay rendez-vous am ak ay traitement am. Mm-hmm. day dem di ngis di mu dem ba yàq xëtëram yàqu. kon kooku mën na rey borom euh, progressivement à petit waaw mineurs nag yi nga xam ne mooy comme li ma doon wax euh, sànq comme lu ñuy wax maladie de Newcastle. waaw xam ne bu waa ci ginaar yi mën na jàpp doomu aadama def ko ay apollo euh, ak yooyu loolu mën nañ jàpp ne euh, soxoruñu soxoruñu soxoruñu loolu. waaw mais daal li ci gën a fës daal ci yi nga xam ne mooy yi gën soxor yi mën nañ jàpp ne rage bi si la feebaru say tuberculose si la. Uh-huh. coronavirus bi ñuy wax aussi. ah coronavirus mm. moo xam bi fi yi fa amoon la mooy syndrome respiratoire aigu sévère wala. Euh, syndrome respiratoire voilà voilà MRS bi bu nga xam ne mooy Moyen-Orient bi donc yooyu yëpp yu soxor lañu yu soxor lañu waaye nag yooyu Euh, bu feebar feeñee it mën nañ def ay traitement symptomatique mhm. comme ni nga waxoon sànq donc am nañ ko pare daal di wér mhm. ah am nañu wér voilà kon soxor na mais nag wér mën na cee topp mais bi nga xam ne nag moom amul wér mhm. muy feebaru say dañuy jàpp ne mooy bi gën a soxor d'accord waaw d'accord euh, recommandation yi lan la wala gestes préventifs yi nga xamante ne moom ngay digal ñëpp ci moo xam coronavirus bi ndax mel na ni moo gën a tiital ñëpp ci suñu mbokk yi fi sànq. waaw waaw manière waaw euh, li ma leen di euh, njëkk a wax rek mooy ne euh, waxtaan wi li ko tax a jóg bu fekkent xeetu coronavirus yi la. li ko tax a jóg du tiitalaate. waaw ndax bu nit ñi tiita tiitee. ku nekk lu ñu xam fu ñu jëm ñu xam lu ñuy def. mais rek pour yee la pour yeete. Mhm. waaw pour yeete la ñu xam ne xam sa noon mooy tax nga xam. na kay koy ngay fag na ngay fag voilà noo koy jekkoo jërëjëf mooy tax nga xam ne noo koy jekkoo loolu moo indi wax bi mhm. euh, te comme xam nañ ne feebar la boo xamante ne ah mën na jóge ci ay mala dem ci doomu aadama mhm. ah, ñu jàpp ne war nañu ma mala mala yi nga xam ne ñooy yi nekk ci àll bi waaw ko leen moytundiku aussi suñuy jur di joteeg ñoom mooy tund ko aussi di lekk fekk raxas suñuy loxo mm-hmm. wala mooy tund ko aussi ki nga xamante ne dafay euh, soj yaramam tàng muy sëqat ñu ñëw di ko jege mm-hmm. di ko tiim muy sëqat suñu kaw ñu mooy tund ko loolu ki nga xam ne aussi moo am loolu aussi mu moom it aussi mu def geste boo xamante ne am na ko waaye bu mu ko yéene keneen Mm-hmm. waaw nañ jàpp ne néew sax am na ko waaye nañ jàpp ne mi ngi sëkkat xamul sëkkatug lan la mm-hmm. soj na yaramam tàng na sibiru na xamul lan la waaw na prévenir mm-hmm. bañ ko def lu fu ko neex wala di ko def ci kaw ñeneen waaw lépp lu ñuy lekk loo xam ne aussi lu jóge ci ay jur la ñu togg ko ba mu ba mu ñor ah, euh, soo ko mën a soo ko mën a jëriñoo waaw loolu daal mooy ci tënk li nga xamante ne moom la ñuy joxe comme conseil mais nag ñu jàpp ne rek Euh, lii dafa nekk loo xamante ne daf ñu war a ub gën a ub suñuy gët. Mm-hmm. waaw gën a ub suñuy gët ndax yeete la jàngat la. waaw euh, yeete la jàngat la ñu bàyyi suñu xel. Euh, coronavirus moo am actuellement mais leneen ak leneen mën a am. Ebola amoon na fi. Ebola amoon na fi donc yooyu yëpp amoon na fi kon ñu gën wax askan wi rek ne mbir mi nañ jàpp ne wan xel fu boobu ñuy wax muy une seule santé. Mm-hmm. muy ne doomu aadama ak mala ak li leen wër yëpp lu ci feebar. la la ca des du wér. Mm-hmm. ko bàyyi xel gannaaw nañuy aaree suñu bopp euh, am na ku ko wax. Mhm. mu ne jur gi aussi na ñuy fexe di leen fajee noonu. Mhm. ñu wér ñoom itam ñu wér ñoom itam. waaw loolu daal mooy li nga xamante ne moom laay joxe comme conseil te ñu moytuñu ko nag di defal suñu bopp toujours rek di jëm dem si ñi nga xamante ne. Mhm. Euh, yàlla may may na leen seen xam màcc ci loolu. ñuy dem ci ñoom pour ñu leen di euh, defal li ñu leen war a defal. te moytu panique beeg. moytu panique bi voilà panique bi moom. panique jaru ko voilà <laughs> jaru ko. nañ jàpp ne si suba rek maa ngi consulté waat naa carte donc. Euh, li nga xamante ne mooy wane ne feebar fi mu am. waaw dëkk yi mu am yëpp da ngay gis ne ñu def maanaam benn kii mandarga bu xonk. waaw mhm. ah, mais gis nga Afrique amagu ko. waaw mhm. ah, amagu kenn gisu ko ci Afrique. donc am na yeneen dëkk yoo xam ne ci lañ ko ci lañ ko gis. waaw ah, ñu fu ne ñu dafa marque bu xonk. waaw mhm. kon nag euh, situation bi ñuy wax inde boobu amaguñ ko. nañu fexe mooy moytuñu ko rek mu daal di fi dugg. waaw mais kon ñu xam ne. li ñuy wax pour fàggandiku la rek. waaw fàggandiku la waaw mais ko fenn. waaw ne dañuy tey waaw di def fa li leen li leen digal. d'accord waaw euh, docteur Isma Ndiaye maa ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay fay maa ngi lay sant euh, soxna Khady. Uh-huh. ci opportunité bi ñu jox pour ñu mën waxtaan ak askan wi. merci beaucoup ma fàttali ne vétérinaire consultant nga mm-hmm. tey yow la ñu doon dalal ci wàllu li ñuy tuddee ay zoonoses jaarale mm-hmm. ko ci coronavirus. Mm-hmm. Euh, mooy baat bi ma jàpp tey ci yow. <laughs> ñu ngi àndoon ak Val d'Afrique ordre des ak Sud FM ñu fi woote yi ñëpp itam ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci leeral yi Assane Thioune mu nekkoon ci technique bi ak. ak Alioune Badara Socé ñi ngi leen di jox rendez kon mardi prochain te di leen wax ni émission bi mun ngeen dem suñu site eh, sud fm seen rajo point com dinañ leen ko fa postel intégralement ngeen mën ko daal di déglu jàmm ak jàmm festival da raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Valda Afrique moo leen doon may seen émission Allo Docteur. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé Iwai wirdi alam nele nuelu wele Iwai wirdi alam tiwai wele wele Changei tale payeku Bonjour, comment ça va et comment va la santé su ma tante ji nekk kaw ga tante ji nekk kaw ga tétanos daaneel ko taagaañu woon nak ileer jël suuf taf ca góom ga mieux vaut prévenir essaie de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé Te ngeen aar ci jàngoro yi de leen ci jàngoro dañoo bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitose dañoo bare dañoo bare dañoo bare mieux vaut prévenir essayer de guérir bonjour comment ça va et comment va la santé jigéen wérul toppatoo war na ca jigéen wérul toppatoo war na ca doom ju juddoo toppatoo war na ca doom ju juddoo toppatoo war na ca dañu leen leen ci jàngoro yi dañu leen war a vacciner aar leen ci jàngoro yi dañu war a vacciner aar leen ci jàngoro yi dañu leen war a vacciner aar leen ci jàngoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir bonjour comment ça va et comment la santé

Sud FM di leen jox xibaar gaaw te dëgg